fekkente ni yow mën nga ko défendre ça montre que sa xam-xamu Sénégal des na nag mooy lan non je veux dire. man comprendre ba li ngay wax en fait. non dama ni sa xam-xamu Sénégal le pays réel le ce pays. yow yaa ma gën a xam Sénégal mais reviens à la citation de tout à l'heure. Ah, yow bu dee yow yaa gën a gën a Sénégal waaw ah, mais loolu nga loolu ça t'engage quoi. allez Pape Djibril Sénégal nga ni tukki wu ma biir. biir yaa ma gën Sénégal Sénégal jël na ko kon Pape Djibril. non yow la gën a xam ah. mën nañu laa gën a xam Sénégal non non non débat c'est pas Sénégal xam la ak ñu xam ah, non non mais mais bu jugement de valeur yi moom gënoo ma xam Sénégal du ma ko nangu. allez à toi Pape Djibril. xam nga suñu émission yi fi